وجهت وجهي لمن لدي وبداي لوالدي وجهت وجهي لمن لدي وبداي لوالدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki téléspectateurs Al Mouridiyyah TV ñi ngi leen di nuyu di leen sant ñi ngi fii ci dëkk bu tedd bii di Touba ci kër Cheikhul Khadim jàkkaarloog jumaa ju mag ji ak penc mi fépp nag ñu di fi dundal guddik eh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko daal Hizbut Tarqiyyah baaxoo defee at mu ne ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu di ko ànd ak moom fii ci kër Serigne Touba gi nga xamante ni moo jàkkaarloo ak jumaa ju mag ji incha allah foofee la ñu fas yéene ànd ak yéen won leen kuréelu daara isbu tarixe yi nga xam ni ci suba ga la door liggéey bi naka noonu itam ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñoom waxtu wu ne ci léggéey boobu ak ni sëriñ Serigne Touba diglee berne yi nga xamante ne moom la guddi gi war a àndal ak mbooloo mu takku mi nga xam ne ñoo fa nekk fas yéene ànd ak ñoom ci njàngum alxuraan ak njàngum xasida kon loolu la ñu fas yéene incha ànd ak yéen fii ci dëkk bu tedd bii di Touba ci guddi gi Leylatu Mawlidin Nabi atum junni ak ñeenti téeméer. ak ñeent fukk ak ñaar muy mille trois mille quatre cent quarante deux dëppoog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre incha allah ñu fas yéene dugg ci biir nag wan leen liggéey bi ni nga xamante ne ni lay doxe fii ci kër Cheikh Abdou Khadre ngi fi ak eh, sëñ Atou eh, jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah ginnaaw bu ñu ko ziyaare ndokkeel ko ci guddi gu tedd gi daara Hizbut Tarqiyyah ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha dig eh, digle woon ñu ngi fi kuréel bi sës rëkk ci moom fas yéene ànd ak moom guddi gàmm gi. waaw ñuy sant yàlla bu baax ci biñ ko teeweewaatee di siyaare sëriñ bi di ko ndokkeel ci bis bi di sant yàlla nag bu baax ci tawféex ji nga xam ne. amaale nañ ko ci biir feexi boppam ci euh, muy loo xam ni dolli ku na dolli na ku ne rafet njort ndax bis bu toll nii mu kenn mënta defal nit lu gën a rëy lii mu defal ñëw sës rek ci moom ànd def xasida yi muy muy muy muy muy lenn rek nag di sant yàlla bu baax a baax ci lim waa baaxoo ànd ak euh, lim baaxoo wax wax ko ànd waxe ko ànd ak ñun nga xam ne da daan daan nañu wax ne du yéen du man ki nuy womat rekk la moom loolu moom ñeent fukki at ci ren walla lu ko ëpp moom mosu cee jóg ñun kay ñoo am rekk yëfi doomu aadama nga xam ne moom mun na wax mu fexe mukk ba jege ko waaye moom waxtu wu ne ngi nuy jege ñuy sant yàlla bu baax a baax te te di di di lislaam bi yëpp nag jiital ci seexul xadim mi nga xam ne moom sëñ bi moo ko fi nekkal tey di mu teg na ci yoon nu koy dundalee ni mu ko bëggee muy jàng xasida yi alxuraan ji ñu koy def fee baas ba fii nu ko fi jàng ci kaw waa ñu ko yëkkati ñàngum yëkkati ko def lépp di ay bernde mu mu mu mu mu koy lu ñëw rek mën nañ ko tas lu ñëw rek mën nañ ko joxe lu ñëw mu mu yóbbu ci biir nit ñi fàttali na njaareem yi nun ñii waañam lañu euh, ci ci ci ci waañam yëpp nga xam ne te timis ba tey ndab yaa ngi dem te bëccëg ba tey noonu la ko boolee def waaye lu ñëw rek joxe na lu ñëw jàllale na ko lu ñëw am na teewlu man xam fu mu gën a yeeyee mu yóbbu ko fa ñuy sant bu baax a baax sant ñaan yàlla nu fekk ko ay déwén déwén mu ñaan yàlla moom mii nag euh, sëñ Touba bàyyil nu ko fi bu yàgg ñu ànd ak moom mu am ci cawarte ci kattan waaw ci gudd fan ak wér waaw jërëjëf luñ ko bëgg a ñaanal yëpp mën na ko wax waaye sëñ Touba xam na ko liñ bëgg ci liñ bëgg liñ bëgg ñun ci moom mi sëñ Touba xam na ko moo nu ko gën a xam moo nu ko gën a gis moo nu ko gën a bëgg moo tax yaakaar am nañ yaakaar ne am nañ ko jërëjëf kër Cheikhul Khadim fi nga xamante ni fa la ñuy defee gàmmu gi euh, daara Hizbut Tarqiyyah ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké euh, ñu ñëw nag ci barab bi nga xam ne ñi féetewoo wàllu naanu bernde yi moo xam ñu tàng yi wala yu sedd yi ndax euh, xam ngeen ne sëriñ bi noonu la ko digle bi sukkarin aw laxam yi comme ni mu ko waxee ci Jisbul Xuloob fii nag ñu fiy defar xeeti naanu bernde yëpp moo xam kafe ak yeneen yu di mel ñu fekk fii daara Hizbut Tarqiyyah ni ñu ko baaxoo defee ak ñoo xam ni waa ahlu kafe ci njiital soxna maam Issa Mbacké euh, at mu nekk ñu indi seeni kuréel ak seen équipe ñu ànd ak daara ji ci liggéey bu rafet bu am solo yàlla dogal na ñu nekk fii ak sëriñ Ismaïla Sagna ak sëñ Daam xam naa danañ leen jox ñu leeral ñu nan la seen liggéey doxee ak nan la ñuy taxawoo wàllu liggéey bi diirub li nga xamante ni mooy gàmmu gi. siyaar nañ baax Cheikh Mamadou Lamine siyaar nañ la bu baax baax baax di sof suñuy kàddu fi nga ko waxee sànq rek. gàmmu gi sëñ bi dafa wax bi sukkarin aw laxamin ni mu ko waxee ci taxsimuhu bi sunnati ñun fànn gi ñu féete mooy ci bi sukkarin aw laxamin gi bi sukkarin aw laxamin gi nag bi ñu xëyee ba tey yàlla dogal na maanaam lu jëm ci ataaya ak café ak bisaab ak citron ñu ngi ciy def suñu kéemtulaay kàttan fi mu ne lii nga fekk ñu defar produit bi ñu defar ni meew la ñoo fas yéene doon meew mu sedd te itam bëgg nañu itam mu am bu tàng itam waaye xam naa bu sedd bi moo ciy ëpp doole ndax comme guddi gi moom day guddi goo xam ne wax dëgg dañ ko war a dundal mu fees dell dell dell ak i njëriñ bu soobee sëñ Tuubaa ñun moom suñu côté ci laxamin gi ak bisu karin bi du du du dese ci ñun bu soobee sëñ Tuubaa ndax gars yi waa cuisine ñu ngi wàccee laxamin gi ñun ñiit ñu ngi préparé euh, bisu karin bi incha allah itam moom du du du du seddee suñ côté daal bu soobee sëñ Tuubaa waaw mu ngoog euh, sëñ euh, kon yow itam nga ànd ci liggéey bi. Euh, boobaak léegi nag euh, ngeen di ko ànd ak daara Hizbut Tarqiyyah muy liggéey bu am solo ci wàllu kafe gi nan ngeen doxalee wàllu liggéey bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baax euh, tey ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu tawir di nuyu bu baax si Mouhamadou Lamine ñu ngi lay jaaraat bu baax di nuyu waa daara Hizbut Tarqiyyah yëpp di di di jéggalu bu baax si suñu la fi mu daanelee rek foofu rek la wallaay waruñu fee sos dara waroon ñu sof ko fa ndax ni mu ko wax rek bu sukkur yi aw la amin moom daal lépp ngi taw fexe ndax euh, du mu Mountakha ku ne xam ne ne daayira Hizbut Tarqiyyah lépp lu muy def moom mii nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa maanaam yéen la koy àndal yéen la koy yéen la koy yéen la koy yéen la koy tërale ngeen ànd ak moom ci liggéey bi lim ne gémmewu leen te loolu mooy dëgg ci moom kon loolu yàlla na yàgg kon euh, li li li sëriñ bi wax ne jàng xasida ak naan kafe ak xeeti berne yi daa bokk ci mandargam yoonu murit moo waral nag ñu sofoog suñu suñu suñu mbokki taalib yi nga xam ne ñooñu tey ci liggéey bi luñ ci yëngu rek ñu ànd ñu ànd kook ñoom di di di góorgóorlu ci liggéey bi macha allah kon ñu ngi leen di jaajafal baax macha allah jërëjëf macha allah waa kay jërëjëf muy euh, Serigne euh, daam caam ñu gën ko miin ci sëñ Dame Café euh, muy féetewoo liggéey bi ci taxawaayu soxna Maam sa Mbacke mi nga xamante ni yàlla dogal na lu yàgg mu di ko ànd ak isub tarixi liggéey bu am solo bi ñu fekk fi mboolem jëwriñ ñi nag sëñ Ismaïla Sagna wax ci seen tur kon incha allah nii rek lañ koy gisee te it fu mbooloo nekk ci diir guddi gi ci biir kër gi incha allah seeni berne dana la fa fekk wa xayra isaatin wa xayra ila mu ma bi xabri wal bijaay man bijaay tuñuy góor yallaahu yaa rahmaanu yaa rahiimu yaa man bi xaribin wa mujibin sumiyaa yallaahu yaa rahmaanu yaa rahiimu yaa man bi xaribin wa mujibin sumiyaa. ok jërëjëf ba tey ñu ngi fii ci kër Seexul Xadim ak euh, ci biir euh, kees gi nga xamante ne mooy Daaru Salaam kuréel bi di jàng sës rëkk ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñu ngi fii nag ak sëñ Ahmadou Sidi Samb di taxaw ci wàllu protocole wàllu yi sëñ Ahmadou Sidi sàmm mu mel ni direction général ni ko sëñ Aatu waxee jël na lépp luy matuwaay ci kër gi ñu bëggoon xam nan ngeen doxalee seen liggéey ci biir kër gi rawatina barab yi nga xamante ne bernde lañ ko jagleel. waaw sëñ ñu ngi leen di ziar bu baax di sant bu baax ci taxawaay bi. ndax euh, comme ni ngeen ko leeralee rek ñu xam ne guddi gàmmu seen tool yi mu santaane ci ay bernde ndax anniversaire la te anniversaire ku ne xam ne ne aspect bernde bi da ci am doole lool moo tax sañu aatu ci supervision am dafa euh, waajal loo ay plat yoo xam ne day dëppoog bis bi ba noppi boo koy servir it da yombal li nga da yombal et eh, liggéey service am ndax lépp da ko def ay pièces yoo xamante ne bii lu ci ne di nga moo def ci ay barquettes di ko séddale kon loolu préparation boobu moo tax tey jii boo ñëwee ci kër gi mboolem foo xamante ne bii barabu gàmmu la tàmbalee ko fi sëñ bi nekk nga xam ne moom fu mu nekkal boppam foofu it lu fa war a am ci ay xéwal am na fa ndax ku nga xam ne ne sëriñ am fu mu nekk fu ne ay xéwal da ko fay wër kon foofu lañ tàmbalee fees feesal ko dell ba néeg bi fees dell nga xam ne amul lenn luñ bàyyi loo xamante ne bii amul ci néeg ba xam ne moom fa mu toog lay toog di xool fu xëy woo dem mu mu di ko fa yóbbu amit ay oto yoo xam ne dañoo gaare ci biti yëpp ay booli yoo xamante ni yëpp daa fees dala ki monsieur ginaar gi xeetu yu ne mun na ko ca néegam yor listam di digle ñoom ñoom sëñ Cheikh yu jëfe ndigal li ak ñoom sëñ Mountakha Sokone bu dee saal bi si si moom nga xamante ne bii ñi nga gën a jege fa la ñuy nekk ànd moom guddi gi foofu def na fa benn équipe boo xamante ne bii lépp am na fa salle bi ñu jàngee boo xoolee image yi xam ne dara manqué wu fi loolu mooy bâtiment bi nga xam moo moo sës sëñ bi boo jëlee ci boo génnee fi nga xamante ne bii fa la waa kuréel bi nekk ndax tey jii fi ñu jàngee ku jàng ba noppi day génn ku war a jàng day toog fa ñuy toog it def nañ ba dispositif boo xamante ne bii ci wàllu benn boo ñëwee ne leen toppatoo boo jàngee ba noppi ba fa jaaree ñu toppatoo la loolu bu ñëwee dem ci barabu durusukaay bi nga xamante ne bii mooy bu sëñ Fallou foofu it lañ fa man na presque cent kilomètres de table yoo xamante ni yëpp dañ ko dressé ay bernde yoo xamante ne bii de tout genre lépp loo xalaat ne jekk na si anniversaire rek da def nañu ko fa doo ñëw nag ci kees soxna yi nga xamante ne bii moom mi ngi ci pale ji li mbay bi foofu it lampeere mu fay am ndax benn moom amul xaaj ak seen bu dee yàlla suñu borom moo tax amul xaaj ak seen loo waral bu noppee am benn équipe boo xamante ne bii moom la ñuy wax waa distribution euh, euh, beignet ak ak meew ak ndox nga xam ne ñi nga xamante ne bi nekkuñu si yi di dugg génn ñooñu it fu ñu nekk it dañu fay fekk. أجب جاه المصطفى Touba gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji ñu ngi fii ci mbaar mi nga xamante ne moom lañu def ci buntu kër Cheikh Mouhamadou Fadal fii nag xam ngeen ne euh, ni kër gi bindoo kuréel ba dañoo nekk fa ñuy jàngalee Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké li mbooloo mi li ci ëpp ñëw fii ñu def fii barabu durus alxuraan ak xasaay ñu fekk fi nag ñi nga xamante ni ñooy taxaw liggéey boobu ci njiitu sëñ Moustapha Sène ñu fekk fi itam sëñ Ahmadou Sow bëggoon ñu leeral ñu rek nan la ñu doxalee liggéey bi sëñ Ahmadou ñi ngi leen di siyaar di leen nuyu baax bëgg xam nan ngeen doxalee liggéeyu mbaar mi diggante kuréel yi jàng xasida ak yi jàng alxuraan. jërëjëf sëñ Mamadou Lamine ñoo ngi lay ziar bu baax ci guddi gi li nga xam ne moo jëm ci wàllu dundal bi rek moom niñ ko defee weesuwul li nga xam ne noonu lañ ko diglee mooy tanzimoo bi sunnati tanzimoo bi sunnati nag dara jiitu ci tudd yàlla sunu borom la ca njëkk mooy njàngum alxuraan mi njàngam alxuraan mooy pavillon bi nga xam ne moom lañ jiital ci pavillon yi bu ma yeboon ne pavillon yi toll na ci ñeent la ci njëkk mooy alxuraan ji la ca topp mooy diwaan yi diwaan yi yëpp ñu ngi fi boole nañ ñaari diwaan ci benn jotaay wala ñu boole ñetti diwaan ci benn jotaay leen lu ci nekk mu am ay la responsable yoo xam ne ñoom ñooy taxawu njàng mi ànd kook ñoo xam ñoo leen di dimbale ci séddale jukki yi di ko delloo ci nit ñi di ko delloo siwaat ci jotaay bi ñu man koy dajale diwaan bu jeex wala kaamil bu jeex ñu bind ko jël waxtu wañ ko tàmbalee ak waxtu wi nga xam ne ci la matee loolu ñu am patience suñu demee ba guddi gi mat ñu comptabiliser ko xool limub kaamil yi nga xam ne moom lañ jàng ci guddi gi ak limub diwaan yi nga xam ne moom lañ jàng ci guddi gi loolu lépp ñu def ko addiyee Cheikhul bi kon yaakaar naa sëñ Mamadou Lamine nii rek la njàng mi loolu nag sant nañ ci sëñ bi bu baax ndax mbooloo mi yëpp wuy si nañu biñ jullee timis ba léegi mbooloo mi ñuy mbooloo yaa ngi dem a ko ñëw fii mu toll ñëpp a toog ngir am pas-pasu dundal guddi gi ba fajar jot kon yaakaar naa noonu rek ñu ñaan sunu borom daal defal ñu ci tawféex lépp loo xam ne moom la guddi gi laaj mu dimbali ñu ba ñu mën koy def ci dundal ko ci njàngum alxuraan njàngum xasida ak duruus bi ak lépp rek waaye lépp lu muy jur itam yàlla ñu ñu ko sunu borom defal ci barke Xaadimu Rasuul jërëjëf kon nag euh, muy sëriñ Ahmadou Sow wax ci turu mboolem ñi nga xamante ne ñooy taxaw wàllu culte muy euh, alxuraan ak xasida fii ci mbaar mi nga xamante ni moo nekk ci buntu kër Cheikh Mahamadou Fadilu Mbàkke di mbaar moo xamante ni daara Hizbut Tarqiyyah bi ñu jotee ndigal ci dundal euh, gàmmu gi ànd ko Cheikh Mahamadou Muntaxa Mbàkke yeesal nañ ko ni ko defoon ci màggal gi li ëpp nag ci ñuy durus fee dafa la ci biir kër ga ñuy jàng xasida kon ñiy durus ak di jàng alxuraan féete fii nga xamante ni mooy ci mbaar mi ngeen gis kon diiwaan yi mbooloo mu takku itam dikk bi ñu def ci biir écran yoo xamante ni ku fi dikk di mën a teewlu njàng mi mboolem lay xew ci biir kër ga ngay jàkkaarloog moom. muy li nga xamante ni moom lañ leen indiloon fii ci euh, mbaar mi nekk ci bunt kër Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké te daara Hizbut Tarqiyyah def ko euh, dolli ko ci kër gi lépp rek ngi dundal guddi gi ànd koog Cheikh Mouhamadou Mountakha kon gis ngeen nii ñu koy màggalee nii ni lañ koy màggalee ci bépp barab boo xamante ni mi ngi ci dëkk bu tedd bii di Touba incha dem ci yeneen barab ànd ci ak yéen muy fii ci bunt kër Cheikh wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu